booloo mbooloo bala mu doon mbooloo dëgg dañuy booloo dinaa def benn rétropédale un peu ici parce que ñu bëri coow Ousmane Sonko bi ak Barthélemy dama jàpp ne dafa dese leer. dan moo ci leer dafa am lu leeru maanaam dafa am benn confusion. Hmm. il y a eu de l'amalgame et une mauvaise communication. de part et d'autre je dire su fekkee ne Ousmane Sonko génn na expliquer wax ne am na benn. lii leader bu dem ci Macky Sall. kee non man su ma nekkee Pastef bokk pastif li may njëkk a xalaat kan mooy leader ci biir Yewwi Askan bu dem ci Macky Sall kon Khalifa Ababacar Sall on a vu cette nuit sawaay ñun sunu kër yee boo demee ci kër la bi li na wax daggal ak sabañ xalifa jot ci guddi googu lu toll ni àdduna moom ak ñenn ñi Habib Sy parce que am na lu nit ñi njort. benn ñaareel ba on a vu la rencontre du président de Barthélemy de monsieur Sy Habib et cetera une rencontre officielle mun ma ci am problème man officielle pourquoi d'autant que celui-là et le maire de Dakar et c'est lui qui a invité le chef de l'État je ne pense pas foofu am problème la deuxième chose moo di ne Ousmane bi moo wax foofu nag man ma jàpp ni peut-être amalgame ou mauvaise com wala njuumte wala incompréhension am na digganteem ak Barthélemy ba muy wax loolu ñenn ñi jàpp xar kenn xalaatul Barthélemy il a fallu que le lendemain Barthélemy ñëw tontu wax ne man la maa def lii ak lii ak lii te warul woon demee noonu ndax ba may dem jël naa sama temps ba may wax ak président la ci xew de bout en bout Ousmane xam na ko bu fekkee ne Ousmane xam na ko de bout en bout kon ñoom ñaar lañu waxante ka si nekk xam nga ka bu fekkee nag toog nga ci mbooloo mi ne diw Barthélemy wax na ma ne wax na ma ne gis na président parce que lii ak lii je pense que foofu coow du am mais boo nee benn leader dem na ci Macky Sall day jur ñun ñi ànd ak yow ñu ne kon kooku dafa wor foofu la confusion bi jóge le lendemain Barthélemy là où j'ai mis benn bémol ci sa communication mooy bu yemoon ci ne Ousmane bi muy wax démb dafa waroon wax ne man maa ko wax ne et non pas leader parce que en disant leader dañuy attaquer sama leader man Khalifa Ababacar Sall ñu waxtaan rek te dëgg yàlla rek tax et ainsi Barthélemy na yem foofu ce que j'ai mis comme bémol mooy ba muy dem dans le sens de ay quatre-vingt mille vues ay après loolu aussi les partisans de Pastef dañu koy té meraka si mu jur coow asaaloo après quoi bu rencontre f quatre amee Khalifa Ababacar Sall ba nga xam ne mooy leaderu Barthélemy bu dul Barthélemy moom bu ñëwee taxaw mi la nit ñi gis. looloo indi la réaction qui s'est passée la bas ce sont des jeunes moi je les comme ils sont frustrés révoltés comme la majeure partie des Sénégalais yi nga xam ni jàpp nañ ne tey li Thierno wax egg nañ ci benn niveau N président Macky Sall moo tollu Sénégal xam ni ku ko seen sax naan ko Macky gis nga boo ko tàllalee loxo sax naan ko Macky nit ñi yekkal lu mel ni xeme malheureusement dañu yóbbu Sénégal yi ci benn stade boo xam ne et ça c'est la faute malheureusement du régime actuel mooy ñoom ñoo yóbbu Sénégal yi dans le sens haineux du terme jàppe bu tegul fenn un deux ñu jàppe dóore bu tegul fenn faat bu tegul fenn nit ñi nag nekk ngeen baal ma ñu atteindre benn seuil de névrose bu graaw boo xam ni du ñu baal kenn lenn mais sur le cas de ce qui s'est passé hier entre Khalifa et les autres confusion laa ko jàppee amalgame incompréhension boo xam ni dañu war a toog ñoom muy Barthélemy di Ousmane Sonko di xalifa di waa Yewwi Askan bi lijjanti ko seen biir pour mën a dooleel F24 bi bu lu mel ni mu di la maa wax de xaw ma nag aw je suis pas un devin mhm. si l'opposition ne reste pas en bloc moom na Sénégalais bu ne xam ni président Macky Sall li mu bëgg a def da koy defaat